rahmatullahi barakaatu maa ngi leen ñuy nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàcc euh, wàccuwaay di leen remercier ci li ngeen wuyu si euh, équipe bu CTV Càmbar TV ni ko Abdou Khadre Fall nga xam ne mooy euh, coordonné programme yi ni mu leen ko présenté di kontaan loolu seen teew parce que ay partenaires lañ ñun ñii dafa am message yu ñuy wax ma bokk société civile bi bëgg ci jël sama wàll carrément ci rawatina lépp loo xam ne man dama jàpp ne luy defar la lislaam bi euh, wala euh, réew mi Sénégal wala Afrique wala adduna bi yëpp euh, dama ci joxe sama xalaat bu ko defee question yaa ngi noonu ñu jox leen ngeen laajte ma tontu ci sama kéem kàttan ak sama kéem xam-xam di leen remercier waat encore bismillah. asalaamaaleykum Imaam première laaj ak mooy tolluwaayu politique bi ci réew mi ñu ngi déglu élection législative ñu gis démb. xat-xat la boo ni am na dox ci diggante maire bu Dakar ak euh, takk der yi la ko waral muy liste Yewwi Askan Wi bu département Dakar mu mel ni euh, dañ ko nar nax saayal ci bu ñu déggee kàddu yi nga xam ne yëkkati na euh, yi ci législative yi ñu dëgmal ban jàngat nga ci waaw réew mi foofu la toll ci organiser ay élections législatives li ma ci njëkk a wax mooy wax dëgg yàlla Sénégal war nañu dépasé ak histoire politique Sénégal ni mu mel est-ce que xam ngeen ni Rufisque suma ma juumul mën ngeen ko confirmer après avec les universitaires yi def sciences politiques et cetera Rufisque organisé organisé nañu élection euh, dans les années dix huit cent et quelques avant France avant France ay élection municipale kon Sénégal background boobu mu am war nañu dépasser élection bu jot ñuy poser les mêmes problèmes seetlu ngeen ko depuis daanaka Senghor ba léegi toujours les mêmes problèmes fichier bi jaaduwul euh, liste bi pour pourquoi ñu bëgg ko éliminer parrainage bi nangam Sénégal war nañu dépasser loolu euh, dëkk yi nga xam ne dëgg-dëgg démocratie bu civilisée moo fay dox dañuy def seen élection normale suba sa ñu dem liggéey ay dëkk yoom ay millions centaines de millions d'habitants léegi Sénégal bu élection jegee daanaka at boobu ak at bi ci topp fitna la ñuy dund donc man li may njëkk wax mooy loolu war nañu dépasser loolu te man damay gis ne classe politique bi am nañ ci responsabilité trop dañu war a respecter le Sénégal engagé wu politiquement lu baax la au sens noble du terme mooy danga jàpp ne am na loo mën a indil sa réew dans la gestion des affaires publiques mais kon doo installer sa réew ci benn crise perpétuelle boo xam ni ay milliards lañ def ci fichier électoral bi ku gagné dootoo wax ne fichier bi baaxul ku ñu gagné nga ne fichier bi. Euh, baaxul élection yi liste bi liste bële euh, da ngay gis ñoo xam ne ñu ngi coow politique coow politique ba ñu leen ne indi leen dossier duñ ko matal alors que ku bëgg yore réew man déjà dama lay xool déjà ci est-ce que tu es capable de t'organiser pour que li nga xam ni loi bi moom la laaj ci ay bagages ni ngeen koy waxee yéen xale yi ci ay dossiers nga pare ko à temps déposé ñi nga xam ni tam ñooy pouvoir bi ñoom tam dañu war a organiser ay élections yu transparentes yu tegu ci yoon bañ a ñi. bañ a def dara loo xam ne yóbbu fitu euh, opposition parce que démocratie dëgg du ndam nga nekk ci pouvoir euh, éliminer ñi nga bëgg a éliminer ñëpp euh, dàq li si nga bëgg a dàq yëpp ba pare dem gagné élection yi loolu du ndam te kuy doxalee loolu tu n'es pas un vrai démocrate démocratie boo xam ni da nga créer conditions yi nga xam ne yow rek yaay mën a gagné loolu ban démocratie la donc dañu bëgg mooy compétition bu saine bu normal boo xam ne ñëpp ay am les mêmes opportunités que réew mi ko ku nekk tey ci pouvoir bi jëlal tey président Sall bi mais am na nu Sénégal doon demee citoyens yi bañ a engagé wu société civile bañ a engagé wu ak euh, yeneen parti politique kon tey moom du nekk président d'accord ngeen ak man am na jaar-jaar yu metti yu mu amoon fii nit ñi seetaanuñ ko ak euh, le régime de Ablaye Wade kon nag moom tamit il doit pas faire moins que le régime de Ablaye Wade mooy que nañ ñu organiser élection yu normale mais aussi ñun en tant que société civile ñun képp koo xam ne li ngay def jaaduwul ñun dañu la duut baaraam parce que ñun dañuy jouer ci ay équilibre réew mi dafa soxla ay donc ñun tam du wax ne opposition bi lu mu def rek ñu ne noonu la euh, parce que pouvoir bi ñoo leen tooñ kon tamit opposition bi nañu indi seen dossier normal li nga xam ne moo mujj xew démb euh, mën na indi fitna ci réew mi mooy que ni vraiment euh, organiser élection boo xam ne ci réew da ngay mujj éliminer list ñi nga xam ni ñoo gën a représentatif ci opposition du am sens kon finalement kan ngay demal compétition bu ñuy wax démocratie mooy compétition politique dañu war a def compétition politique sénégalais yi dégg nit ñi joxe ay programme euh, wax ne lii laa bëgg pour que ñu mën a tànn euh, kon loolu lañ ci soxla mais opposition bi tam nañ matal li ñu war a matal parce que aussi bu fekkee da nga ne man am naa mbooloo jeunes yi man lañ àndal euh, lu ma neex laay def mais damay dem élection loo tam rafetul kon nag nañ ko teg ci yoon fi mu nekk nii ñu bàyyi listu yeewi askan bi ñu mottali li ñu war a mottali ñu dem ci élection yi def compétition bu normal ñaari coalition yoo xam ne seen ànd bett ñu bari ci Sénégalais yi naka man de bettuma bettuma gis nga politique eh, ni ñu koy faral di waxee ak ka nekk dëgg il faut jamais dire jamais en politique ñi ñi waxoon ñëpp ne ñoom duñ ko def ñu ngi koy def fi mu nekk nii du tudd ay tur mais politique moo tëddee noonu moo tax politique dafa laaj flexibilité te am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne flexibilité mooy ragal mooy mboqat man mii dañ ma koy eh, jiiñ suba ak ngoon Imam Kanté dafa nooy trop position am dafa woyof nangam ak nangam mais xam naa li may def parce que dafa am yoo xam ne boo ci amee position bu catégorie suba sa rek mu am lu lay wan ni mieux vaut danga waroon yaatal yëf yi tuuti am flexibilité politique taxawul fen parce que ay xalaat la ak ay adaptation ak ay situation yu changé du science exacte politique du 1 plus 1 égale donc man loolu daf may jaaxal mais nag gis nga boo nekkee ci pouvoir borom xam-xam dafa ne na ngeen moytu ñaar kii nekk ci pouvoir te ragal ko ñàkk kooku lu ne dana ko def ci ay contradiction ay mbir yoo xam da naan kii xàmmeetuma ko politique moo mel noonu yëfu pouvoir moo mel noonu dafa am mystère boppam euh, ki nga xam ni tamit dafa bëgg jël nguur moom tam léeg-léeg mu mel ne ku xaw a ñàkk sagoom donc na ngeen xam ne euh, affaire u jamais ak affaire u euh, kii ku bon la man maa baax du ma a ànd ak kii gis ngeen ko fi du mës a transhumé nangam ak nangam yooyu yëpp réalité politique bi wane na ni jaru ko li gën daal mooy nga wax sama programme mi ngi nii ah képp koo xam ne nag euh, war naa mën a ànd ak moom dañ koy waxtaane parce que da ngay toll foo xam ni yow rek xam nga ni du loo mën a dem sans def coalition kon bu fekkee da ngaa euh, bot di ñëpp dès le départ ñëpp nga ne leen da ngeen bon man maa baax euh, kon après su su alliance jotee rek nga am problème kon nag nañu gën a yaatal dënn yi gën a am réalisme politique te loolu waru warul firi tamit fen ngeen baal ma ak wax lu dul dëgg ak loo gëmul déedéet c'est pas la même chose mais dangay ngay wàññi rek ni man lii mooy sama programme lii laa bëgg mais man rek nekkuma ci réew mi waaye ala kulli xal koo xam ne dama war a ànd ak yow dañ koy waxtaanee teg loo xam ne mën nañ ci juboo soo ko waxee noonu mën na am mooy tane que dès le départ rek nga ne man maay nitu dëgg man rek maay politique politique bu rafet ku dul man naa fekk nga gëmoo dëkk bi nangam ak nangam euh, et cetera ku jël nguur gi tamit euh, daal ne voilà ku àndul ak man du ma mës a jubóog yow cetera loolu de politique bu rafet. préfet bi ne ko tu n'es pas habilité à le faire muy moom muy taw muy naaj neex mu na xarit préfet bi da koy def est-ce que ñu ngi jëm si euh, bras de fer entre euh, maire yi Yewwi Askan Wi ak ñi nga xamante ni mooy état du Sénégal ñu gisee logique bi waaw waa sans limite maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu di leen jox seen euh, wàccuwaay euh, question yu am solo nga nga indi te effectivement war nañ def attention ci loolu mooy li ma wax Sénégal am nañ expérience politique bu yàgg décentralisation yàgg na fi euh, nañu éviter mairie yi ak ñi ko jiite di xeex ak état bi ak ñi ko jiite parce que ku ci nekk dafa am wàccuwaayu boppam am charte bu tëral ay mbiram. jox ko ay prérogative ay sañ-sañ àq ak yelleef ku nekk bu respecté li nekk ci charte boobu problème warul am kon problème bi du non man il faut ma seeti président jubóog moom pour mu mën ma jàppale même loolu man ànduma ci président amul lu mu lay sarax un maire n'est pas un mendiant boo xam ni dafa war a dem jonkan ci kanam président naan ko dimbali ma ngir yàlla li war wa rasul ah eh, nga mun ma defaral sama talibé déedéet lu ci nekk am na fu ñu koy jaaree li nga xam ni commune bi moo ko am ay compétences transférées na ko jël ba mu mat sëkk li nga xam ne état bi daf ko war a jox ci ay ressource na ko état bi joxe état bi kon warul retenir ressources yooyu wala di wax kaay leen fekk si ma man en tant que président euh, président moom moo état bi de da nga war a garantir fonctionnement état bi attention président moom moo état tu au service de létat état mais Afrique moom président da nga yaakaar yaa moom réew mi moom nit ñi moom état bi non non non tu au service de l' état la preuve que da dem laaj ko nit ñi. da ngay dem laaj ko nit ñi la preuve mooy ñi nga fi gis yëpp nii ñu nekk ay civil nii bu ñu leen coup d'état yi ñu yóbbu na militaire yi toog ci caserne yi nangam nangam waaw parce que kon boobaa la ñuy doogoon xam ni kon euh, état ça veut pas dire que maa ko moom du gestion privée kon nag léegi maire yi amuñu lu ñuy saraxu président amul lu ñu koy saraxu amul lu mu moomal boppam ba leen koy sarax ressources yëpp c'est ressources publiques yoo xam ni dañu wax nu muy demee président bi daf ko war a respecté bu ko respecté wul maire yi dañu war a def ay recours ba ci cour suprême man loolu laa gën a àndal nag balaa ngay taal fitna ak yooyu yëpp nii jaaral fi nga war a jaar yëpp ci nga xam ne ci ay recours yoo xam ne am na fi nga jaar fa euh, yóbbu fa état bi mairie bi mën na mën na porter plainte euh, état bi parce que tel ak tel niñ ko defee jaaduwul et cetera euh, préfet bi ak gouverneur bi ñoom tamit dañu am ay sañ-sañ seen diggante ak ak ak ak maire bi kon nii le président de la république et son gouvernement Euh, ne doivent combattre euh, les les élus moo xam département yi moo xam euh, communes yi du seen cër du seen rôle ñooñu tamit dañ leen élire dañ leen war a jox seen àq ak seen yelleef dégg nga mu neex président mu naqari président dañ leen élire deuxième chose mooy ñi yore communes yi tamit nañ xam ne ils sont des maires de tous les sénégalais de cette commune kon bul jàpp ne man léegi maireu wàllu la wala maireu ànd nawle wala meeru Pastef kon léegi damay xeex ak président Macky Sall parce que Sonko day xeex ak moom noonu non non Sonko buy xeex ak président Macky Sall day xeex ak moom en tant que un homme politique euh, bu bëgg yore réew mi kii yor ko di ko doxalee ci anam boo xam ni àndu ci mu nekk benn xeex ci niveau boobu mais côté mairie bi yow xeexal pour population yi lu ñu war a mën a am ci mairie bi ah ñu am ko kon noonu laa ko gisee su ko defee euh, comme loolu xew euh, Ziguinchor mais. man la question que je me pose mooy nañ dem xoolaat texte yi bu fekkee ni préfet bi wala gouverneur bi dafa wax ni maire bi amul droit au delà de la personne de Sonko amul droit euh, baptiser ngéntewaat euh, penc yooyu ak yoon yooyu na wax fu ko teg mais ñi nga xam tam ñoo nekk ci maire bi nañ génne texte yi wane ni seen àq ak yelleef la ci ñu tuddee ko tur yi ñu bëgg mu jeex parce que texte yi réglé nañ ko taxes yi nekk nekkuñ ci pour pour zéro donc loolu la war a doon pour man vraiment une démocratie locale apaisée laa bëgg nañu doxal parce que loolu mooy intérêt population yi te man en tant que société civile par exemple intérêt population laay gën a xool homme politique yi dañuy jàll gis nga leen tey ñu transhumé fii tey ñu xuloo fii tey ñu juboo tey ñu boddante par contre population yi ak seen i soxla loolu daf fii nekk donc nuñ koy réglé man loolu laay position boobu laay gën a sàmm man donc kàddu boobu laay gën a waxee kon fii nañu seetaat texte yi yéen su leen meexee dem leen gën a xool euh, les les juristes et cetera ne leen mais effectivement est-ce que commune bi moo am boobu prérogative ou non bu fekkee commune bi moo ko am mais écoute Sonko am na droit def lu muy def te boobaa gisuma ban gouverneur wala benn préfet au non de quoi mu mu koy wax ne doo ko def voilà. simili euh, euh, boobu euh, kulli xaal gis nga booy xeex ak nguur tout naturellement nguur da lay singili ah oui du la baal dara parce que li mu yor nga bëgg buggaan fi Macky toog fa la bëgg a toog te Macky Sall tam fa mu toog bëgg faa jóg wala boog même bu fay jóg. du du du n'importe comment la fay jóge bëgg na su fay jóg euh, ka fay toog euh, nekk koo xam ni euh, waayam lay doon et cetera kon c'est sur que Bougane sortie yi mu def ak position yi mu am tey jii bu jegante woon ak président Macky Sall jafe-jafe yu bëri du ko am gisoo yenn maire yi dem rejoindre président Macky Sall parce que dañ jàpp ne loolu day yombal yu baree bari yu ñu bëgg a def donte woon sax loolu pour man moralement politiquement faute la jaaduwul mënuloo nekk ci benn liste parce que bu fekkoon président Macky Sall la muy doxal ak la mu bëgg a doxal ak parti ak coalition am ci euh, communes yi moom nga gëm lu tax dema woon ci liste ba yow nga def beneen liste sa programme bopp euh, dem ci population yi ñu nommé la léegi nga dem rejoindre président bi pour man loolu dafa xaw doy waar dafa mel doy waar donc euh, Bougane c'est sûr que du du du du yomb ci moom comme n'importe quel euh, opposant donc maintenant est-ce que Bougane tamit jël na toutes les dispositions pour bañ a prêter le flanc euh, déposer listam ni mu jaaree yoon loolu peut-être su ngeen demee laaj ko euh, dana ji tontu. jàng ba am xam-xam ci noonu donc moom c'est un contradictoire la jàpp ni parce que nee am na liste yi nga xamante ni si boppam dañ ko dolli euh, bugaan ci yenn communes yi par exemple moo waree foofu benn 75000 ñu bindal ko fa 100 euh, exemple te nee loolu noonu moo tax mu jàpp moom euh, ah je je je pense que su waxee loolu am na fu mu ko teg mu des nag léegi comme ñun ni ma la ko waxee ñun ñu nekk société civile bi réew mi tamit daf ñoo soxla ñun pour ñu gérer ay équilibre nga réew mi suñ ko bàyyee rek ñoom gis ngeen ni muy def gis ngeen la dernière fois émédi bu mu amee ñoom seen bopp politique yi seen bopp ñoo wax société nañ ci dugg jouer médiation sëriñ si et kon réew mi ñoom kese moomuñ ko te tam di leen ko bàyyee euh, mën na métti kon Bougane li mu wax j'espère que am na fu mu ko teg na ko prouver mais en même temps euh, yéen ñii laajtee xibaar euh, su ngeen bëggee ay équilibre tamit di ngeen dem laaj ñi nga xam ne ñoo rejeté liste bi ñoom tam nañ prouver Euh, sur parce que rejet de nekkul rek ne dafa am benn commission bu rejet de liste dañ koy documenter justifier ko bind ko et cetera te tam commission ba euh, ña fa nekk ñëpp mënuñoo wax ne waa pouvoir bi lañ euh, ay administrateur ñoo fa nekk ak tamit ay membres société civile bi et cetera kon ñooñu su ngeen leen laajee ñoom du ñàkk ñoom tam ñu joxe seen version ala kulli xaal bu ñu gisee ne vraiment li ñu rejeté jaaduwul ñëpp war a taxaw ci kanamu pouvoir bi ak commission bi ko def ak. jàppale ñi ñu rejeté bañ indi leen mais en même temps aussi ci démocratie comme ni ma ko waxee il y a des règles du jeu qu'il faut respecter su fekkee ñu tamit yow sa dossier jaarul yoon yow tamit buñ la rejeté bul ne buñ ma rejeté xam nga lu tax parce que li muy indi mooy kon règle du jeu amatul kon ku nekk mën ngaa def nu la neex ñëwee nu mu la neexee mais terewul nga bokk ci la neex gañe lu la neex def la neex loolu ëpp naa def